mbokki jullit yi ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu kilifa diine yi tabaarakallahu di nuyu kilifa aada yi di nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi safoo seen télévision Thiès Info waaye duñu nuyu mukk di fàtte kilifa kër gi nga xam ne tabaarakallahu di Seydina Omar Euh, di nuyu itam tabarakallahu Fall Damel duñ ko bàyyi ginnaaw mukk ak euh, madam Diouf ak euh, Serigne Ahmed ak suñu technicien bu baax bi tabarakallahu macha allah bu ñu ko nuyoo bu ñu leen nuyoo rek ñu yóbbaaleel ñu géew ñëpp suñu waxtaan tey nag ñu ngi waxtaan ci li nga xam ne actualité la waaye itam lu am njariñ la ñu di koy waxtaanee bu baax a baax a baax jullit ñi itam xam mooy lan ku ne xam ne ñi dugg nañ ci koor Euh, alhamdulilah dañuy sant yàlla bi nga xamee ne yàlla may nañu ñu fekkee ko ay at yu bare bare bare ba ci at mi euh, ñuy bàyyi xel di ko bàyyiloo sunu bopp di ko bàyyiloo mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan li tax ñu war a gën a santaat yàlla am na ñi nga xam ne fekke woon nañu ko daaw te ren fekkewunu ko waaye ñooñu dem. du seen ku yaafuus ñun ñi fi des tamit nekkul sunu njàmbaar moo nu fi bàyyi loolu mbokk yi ak njàngat la goo xam ne jar na jullit bi di sant yàlla ba xëy génn àddina fa tabaarakallaahu kon koor gu ren gii yàlla nañu yàlla may ci mbaaxam ak kàttanam ñu dugg ci ci bismillaahi rahmaani rahim euh, ba génn ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu fas yéene waxtaan ak euh, mbokk yi koor su ñëwee charte yi nga xam ne moo ci war dafa baax jullit bu nekk xam charte yooyu ndax weeru koor su ñëwee ndax dafay nekk wareef ci jullit ñépp ñu war a woor ndax weeru koor buñ ne ñëw na rekk képp kuy jullit woor gi dafay war ci yow par force walla déet loolu lu mat a xam la fa tabaarakallaahu loolu mooy charte yi nga xam ne mooy aju ci li nga xam ne mooy koor charte yooyu laa lay limal su ma ca noppee nag dina la ci firiñ fàcceel tojal la ko benn par benn nga gën koo dégg yow mi nga xam ne yaa ñuy topp ci sunu émission bi euh, bokk na ci charti koor nit ki pour mu mën a woor il faut mu nekk jullit nit ki pour mu mën a woor il faut itam mu nekk koo xam ne ku am xel lay doon nit ki pour mu mën a woor il faut mu nekk koo xam ne dafay wér waaye nit ki itam pour mu mën a woor il mu nekk koo xam ne tukkiwul tukki boo xam ne du tukki mooy yàlla du tukki boo xam ne itam tabaarakallaahu distance ba sori na lool ba mu war ko indil ay jafe-jafe ci koor gi su fekkee tukki boobu ajiwul ci moom loolu itam mën naa tax nit ki bokk na ci sart yi mu mën a woor waaye nit ki itam pour mu mën a woor dafay nekk koo xam ne dafay am kàttan maanaam dafay wér waaw dafay wér waaye nit ki itam pour mu mën a woor dafay fekk su fekkee ci wàllu jigéen ñi dafay laab dafay laab laab bu njëkk bi mooy nit ki ku jigéen ki su fekkee set na ci li nga xam ne mooy yi nekk ci ñoom weer wu jot te yàlla mooñaale ko ci ñoom te mooy set ci mbaax waaye nit ki itam pour mu mën a woor day fekk itam mu set ci sobe soo xam ne moom lañ tuddee an nifaas te mooy gësin nit ku ne xam nañ ni tey jigéen su ko yàlla mayee mu jot boppam ba am doom su amee doom ba pare am na deret juy topp ci moom deret jooju sobe la kon du ko mën a wooraale kon soo ma toppee yow mi may seetaan wàññil naa la léegi ne la nit ki pour mu mën a woor foog mu nekk jullit foog mu nekk koo xam ne dafay am xel foog mu nekk koo xam ne dafay majeur foog mu nekk koo xam ne day fekk tukkiwul tukki boo xam ne kilomètres ya bari na lool mu sonn mu nar caa sonn lool dafay nekk koo xam ne itam. day laab ci yii ma la wax ci euh, mbaax laab itam ci deretu gësin waaye dafay nekk nit koo xam ne itam dafay am kartanu mën a woor léegi nag ñu ñëw nag ci benn bu ci nekk nag ñu fas ne ko daal la koy leeral nga gën cee amuk dégg bi ci njëkk mooy al muslimu mooy nga nekk jullit yow li nga cay déggee mooy ndekete dëgg-dëgg daal weeru koor bu ñëwee pour nga woor sa mën a woor valable ñu mën koo note ëllëg ya ca aju yépp yow nga def ko ba dajee see gërmande yàlla yàlla war la koo fay ëllëg yowmal xiyaam pour ñu mën koo valider il faut nga nekk jullit kon loo ciy déggee mooy kon warul ki nga xam ne mooy yéeféer al muslimu fala yajibu ala kaafir loolu nga cay njëkk a déggee yow kon ku bokkul ci diine lislaam bokkuloo ci xeetu seyduna muhammad sallallahu alayhi wasallam woor gi nga xam ne bi ko suñu boroom nammee farataal dafa yónni jibril alayhi salaam mu fekk yonent bi ci kaw suuf ne ko sa boroom nee na kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun dal di dem nga gis ca bopp laaya ba dafa ne yaa ayyuhalladina amanu li muy tekki mooy yéen ñi nga xam ne yéenay yéenay way gëm yàlla yi yéen ñi nga xam ne yéen a yor carte membre diine lislaam yéen ñi nga xam ne yéen bokk ci xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangu ni yàlla suñu boroom kenn la nangu ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la waaye tamit nga fas yéene itam topp santaane yi waaye itam bàyyi tere yi te ku ne xam ne ni koor mbokk yi dafa bokk ci les cinq piliers de l'islam buniya al islaamu ala xamsin shahaadati an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah moo ci jiitu te mooy baatu seede bi wa iqaami salaati te mooy taxawee julli wa itaa zakaati te mooy natt azaka génne azaka waaye wa sawmi ramadaana nga dégg ci weeru koor te ci lañu nekk nii wa xajjil bayti ak aj makka li man istataa ilayhi sabilan ñi nga xam ne yàlla wërsëgale neen ko ñu am ko ci am am ak kartan ak mën-mën kon juróomi ponk yooyu koor daf caa bokk kon pour sa koor daal ñu mën ko valider d'abord da ngay nekk jullit nga mën a woor woor bi nga xam ne moom la yàlla farataal woor wii nga xam ne Seydina Muhammad salaa sallam jàngal nañu ko soo ci bokkee nga woor nag ñu mën koo valider kon loolu ngay déggee ci li ma njëkk wax nii kon fala yajibu ala kafirin beneen bi ko ñaareel mu ne al aqil al mooy ki nga xam ne dafa am xel waaw ki am xel te xelam sell lool te rafet loo ciy déggee mooy ki nga xam ne yàlla daf ko koo xañ te mooy dof bi wala ki nga xam ne ci jëmm boppam dafa am feebaru xel buy dem ak dikk waaye itam dangay gis dof boo xam ne itam nekkul ak xelam waaye léeg-léeg xelam day nekkaat ak moom bari na ci nit ñi waaye am na ñoo xam ne ñoom seen xel dafa tukki tabarakallaahu ba da gis na leen seen yaay jure woon sax noonu la ñuy mel ci mbedd mi wala sax bu ñu ko deful itam xel mi nekkatu fi kooko nag ñu ne la koor warul ci moom kon fala yajibu ala majnun al aqil kon pour nga mën a woor charte yi tege ginnaaw bi ma la waxee ne la ba nga nekkee jullit kon déggee ci ni itam nekk jullit rek taxul nga mën a woor déedéet ndax mën ngaa nekk jullit am yu la gaar yoo xam ne taxul nga mën a woor mën ngaa nekk jullit am yoo xam ne dara gaaru la su boobaa da ngay daal di mën a woor te loolu ci laa nekk ak yow nii di ko nas ak yow benn par benn ginnaaw bi nga nekkee jullit comme lañ ca wax da koy booleek nag nekk ko jullit goo xam ne da ngay am xel lool te sa xel sel rafet mooy defuloo amuloo feebaru xel defuloo comme ni ñu koy waxee ci olof rek ne defuloo jinne jàpp la yaa ngi ak sa conscience tranquille su boobaa nag. koor lay bëgg a war kon ñaari ngi noonu ci charte yi yoo xam ne yow mi may waxal xoolal sa bopp ndax ñaari yépp mi ngi ci yow am déet bi ko ñetteel mooy nee na albaalix kon pour nga mën a woor mbokk yi il faut nga nekk koo xam ne dangay ngay dal di majeur il faut nga majeur ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag wax na ci xadis ne ñett ñii suñu borom du leen bindal bàkkaar ñu ne ko waaw Muhammad ñett yooyu ban ak ban la ndeysaan yonent yàlla Muhammad ne kii nelaw boo xasee ba tëdd di nelaw kenn du ko bindal bàkkaar ba keroog muy yeew ñu ne ko benn mu ne ñaar xale bi kenn du ko bindal bàkkaar ba keroog muy majeur muy ñaar ñu ne ko ñett mu ne dof bi taqali ko xelam kenn du ko bindal bàkkaar ber keroog muy wér ndax ku ne xam ne ne fii ci àddina am na ñoo xam ne dañoo am feebaru xel waaye yàlla ak mbaaxam ak coobareem muy faju ba xelam dikkaat kooka su xelam dikkaatee lu mu defate ci bàkkaar bu ko tuubul dañ koy bind waaye jamono ba nga xamee ne xelam dem na bokkul ak nit ñi tabaarakallaahu lu mu defat yàlla jegal na ko kon dof yi ngay gis ci mbedd mi yàlla topput leen dara ñett ñi nag la yont yàlla muhammad ne kenn du leen bindal bakkar mu ne rufia al qalamu an salaasa an il majnuni xatta yafiqa wa an sabiyi xatta yaxtalima ay xatta yablax waaye wa an il nawmi xatta yastayqisa kon ñett yooyu ma la wax mi ngi noonu kon koor ci nit ki faw nga majeur majeur boobu nag danaal ci indil yow mi ngay topp nga xam ndax yow ci nga bokkam déet waaye nag dañoo bëgg ci xale bi yow wayjur bi wala yow mi nga xam ne yaa yor ay responsabilité yow ci sa jëmm bopp xale bi bu tollee ci juróom ñaari at dañuy bëgg nga koy diggal muy woor waaye waxuñu la mu woor journée bi yépp nag ndax xale bi attanagul loolu waaye mën nga naxanteeg moom bu xëyee ndékki du lekkaat du naanaat nga naxanteeg moom ba digg ba bëccëg bi te mooy ay trois heures su lekkee tuuti naan du lekkaat ba heure ndogu xale bi dañuy bëgg nga di ko ko entraîner ndax loolu mooy tax xale bi su màggee ëllëg moom mu mën a am li nga xam ne mooy jomu koor mag moo fi gis tey jii mbokk yi bu ñu naxante ñu waxante dëgg mag moo fi gis tey jii amul jommukoor koor wala mënu ko waxuma ñii am ngànt ci feebar ak ñoom seen dama ne koo xam ne dara jotu ko waaye ndeysaan moom mënut woor mënu ko xamal nii ba muy nekk xale amul woon jomu wala boog amoon na lu ko manqué ci jàppale ko ci loola yonent bi ne woon suñu gone yi suñu xale yi bu ñu amee juróom ñaari at Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nee na nañ leen di digal ñuy julli <clears throat> maanaam nañ leen ni woo di leen boole ci julli gi. koor gi itam bu ma ñëwee nii ñu leen ci entraîné Moustapha yonent bi sallallahu alayhi ne bu ñu demee ba am fukki at su bañee ci julli nee nañu leen dóor waaw su bañee xale bi bu demee ba am fukki at bu ne ko jullil muy lànk wala yu mel noonu te muy doomu jullit ah nee su boobaa nag nañ ko xëbal tey jël yar di ko caw tuuti ngir nag mu xam ne loolu mu nekkee baaxul te di ko digal lu baax di ko xamal waaye yonent bi nee na sax foofa bu ñu amee fukki at ñoom xale yi. bu ñu musaan daan bokk néeg di fanaan bu ñu demee ba am fukki at te ñuy nekk góor ak jigéen ne nañ leen séparé bu ñu leen booleeti néeg loolu mbokk yi itam beneen waxtaan la woo xam ne ñu ci bari ci way jur yi ñu ko xel dañ ciy déggee ni kon xale bu amee fukki at nay commencé di julli wala ngay tàpp bu dee góor la ak ay jigéen la ci njaboot yi la yàlla booleel keroog booba nag leen séparé ay néeg bu ñu bokkati fanaan. ndax booba nag xale yi ñu ngi commencé dépassé tuuti di commencé jëm mag te bu ñu dee bokk nekk daf xale xamul dara ndax araab dafa ne an nafsukat tifli nee na xale moog bakkan yam bakkan ak xale ñoo yem bànneex rek la ñu xam loolu bay na xaw say ni la boo xam ne dañ ko doon indi ci nga xam ne rek xale lu ñuy tàggat la tabaarakallaahu jàngal ko ndànk-ndànk ba mu miin ba mën ci li nga xam ne ci la tey jii mag ñëpp toll di def loolu nag parent bu nekk am nga ci responsable boo xam ne ëllëg yowmal xiyaam ci sa njaboot wala njaboot gu la yàlla dénk nang leen doon sàmmee yàlla suñu borom dana la ko laaj ndax ne nañ kullukum ra'in wa kullukum am an ra'iyatihi jullit bu nekk sàmm nga kenn ku nekk la nga daan sàmmee yàlla dina la ko laaj kon yow mii may seetaan te am njaboot bu paasee juróom-ñaari at jëm kaw ah commencé di tàggat xale yi ca loolee commencé boo julli di leen woo waaye commencé di leen ko digal ñuy julli waaye nag bu dee koor kaamilan bi tax ñuy wax te ñu koy jàngale moom koor warul ci moom ci ñoom kon mu delluwaat gannaaw tuuti yow mi may topp nga bañ a réer waxoon naa la ne la sama njëlbeenu wax ne la koor charte yi mu làmboo pour nit ki mën koo def mooy dafay fekk mu nekk ab jullit ginnaaw bi mu nekkee jullit dafay fekk moom ci jëmm boppam mu nekk ko am xel ñàkk dof dara jotu ko dafay nekk nit koo xam ne itam tabaarakallaahu dafay nekk ku majeur ñett yii ma la wax fa la ñuy yem ak yow ñu war a continuer ak yow mbokk yi yow mi may seetaan soo ma toppee ci suñu yeneen émission yi di ñëw tabaarakallaahu da nga xam charti koor benn bu nekk na mu la mu làmbool da nga ko gën a dégg waaye doo yam ci xam ko waaye da nga ko mën a dimbali sa njaboot ak bépp mboolem jullit ñu ngi daanal suñu waxtaan foofu nga kar suñu émission bi ci Thiès Info te tabaarakallaahu hada wa billahi tawfiq sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu